tey ci suba nag procureur bu Tivaouane moom moo ñu woowoon euh, pour wax ñu fii nga xam ni foofu la situation bi dossier bi toll parce que boobu ba léegi bi xale bi génnee àddina ba léegi euh, waajur yi mbokk yi ñu ngi xaar pour man leen a denc euh, xam nga nit moom ab jullit bu génnee àddina rek dañuy bëgg denc ko jébal ko boromam le plus rapidement possible mais tey nag bi ñu ñëwee fii ci procureur xamal na ne daal mbir mi àgg na foo xam ni fi ñu toll nii daanaka waxam sax bareetu ci ndax mbir mi euh, kilifaam gi nekk cees moom moo ko yore donc euh, xëy na moom bëggoon na def déclaration wala lu ni demee sax mais du ko mën ndax euh, kilifa gi nekk cees daal xamal ni ko ni daal ñu bàyyi mbir mi ba enquête bi jeex donc daal ñu bàyyi enquêteurs yi ñu def seen liggéey bu ko defee bu ñu paree ci seen liggéey rek dina def vraiment rapidement dina signer kayit Euh, comme ça ñu mën a jot ci néew yi ba mën leen denc incha allah. jamono ji euh, ñu ngi fële hôpital maam Abdoul Aziz Sy Dabakh mais actuellement nii euh, directrice hôpital bi joxe na des instructions parce que nee na waa Dakar war nañ leen jël si tey pour yóbbu leen pour ñu def autopsie bi. lettre bi ñu ngi koy wax mais lettre boobu man mënuma cee wax lu leer parce que lettre boobu bu amoon aussi xam nga du ñu ko wax a à ce stade parce que il faut ñu continuer enquête bi d'abord ba enquête bi jeex. Euh, bu ko defee nag euh, bu bàyyi woon leet wala yooyu xam naa certainement dinañ ko jox euh, famille bi bu ko defee ñun tam ñu mën leen ko wax leen li nekk ci biir tey lañ leen di jële fi yóbbu leen dakaar xëy na fi ak suba ginnaaw suba Euh, moom daal nee na moom dina dina dina def dina xar tànk tubéyam actuellement nii mu ngi commencé di woow commissariat ak yooyu di pour que daal ñu diligenter dossier bi euh, ndax euh, ñu mën koo denc ci anam yu yi gën a gaaw daal ni ko julli ci di def samay dëkkandoo la ñu samay suñu suñu daara la ñuy jànge suñu daara la ñuy defee lépp macha allah li ma xam ci moom di mooy li ñëpp xam ci moom rek liberté na lool parce que kenn xamul mbir mi fu mu jugee waaw waaye daal fooguñu ko ci moom te bett na daal kenn xamul daal mbir mi exactement nan la waaye daal bett nañu bi ñu ko déggee waaw wax ji bari na moo tax nag léegi il faut yoon eggale liggéeyam incha allah ak seen i technique ak scientifique danañu wax mbir mi nu mu demee incha allah.